Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoo La La ila la. La La illa la. la. La Tuuba ilaaha illallaah ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di am mbégte ci teewewaat jataay bii nga xam ni yàgg nañ koo def du tey rek la njëkk yaakaar naa buñ ko fàtt buñ ko fàttewut ba koy ba jéem a xayma dana danañ wax ay at yu bare bare bare waaye nag dafa njëkk njëkkiwutoon ci lii maa ngi wax daam léegi naan ko mën naa dem sax ba soppiku ba doon leneen ndax lu ci mën a xew daal la njëkk ak la mujj ak li ci digg lépp kenn ko tax a jóg muy Cheikh Ibra li njëkk ak li mujj ak li ci digg bi lépp kenn ko tax a jóg muy Cheikh Ibra waaye njëkk loolu dañuy nuyu mbooloo mi fi teew ñépp di ñaanal nag sunu kilifa nga xam ne mooy yaakaar yi murit yépp di Cheikh Mouhamadou Mountakha ko ñaanal suñu borom dolli ko fee bàyyi àggaleel ko yéeneem mu def lu kawe njortam di ko ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda xalifa Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu boroom moom it bàyyi ko fi mu def lu kawe njortam ci liggéeyam Cheikh Ibra bi liggéey bi rafet na lool lii nag ni ko kii laaj ni mu ni ko waxee léegi mu ne ndax lii am na benn ban njariñ la am nga booy xool ci ak ci ak njëlbeen sunu borom dafa waxoon ak jaam bi daan ni an lay yaqdira alayhi ahad daani yaquulu maalan lubadaa a yaxsibu an lam yarahu ahad mel ni jàmbi bi dafa yaakaar ni yàlla mën na ko raw wala mën naa raw yàlla kon wala mu jàpp ni wala mu jàpp ni ay jëfam kenn du ko gis yàlla nag di xamal jaam bi ni ko alam naj'al nay ni ndax defaluma la ñaari bët ndax defaluma defaluma la ñaari bët wa lisaanan ma defal la aw làmmiñ wa shafatayni ma defal la ñaari tuñ waaye bi mu defee yooyu ba noppi nag dafa ko daal di gindi mooy wa hadaynaahu najdayni dafa ko gindi tegal ko ñaari yoon daani nag fa laqta xamal xaq ba wa ma adraka mal xaq ba loolu waxoon yonent bi xaqaba nag bi ci jiitu mooy fakku fakku raxaba fakku raxaba mooy fekku njàpp ak njaam nga libeere ko waaye ba ca ba ca des nag mooy li ñu dajale fii mooy awit xaamun fii yow min fii masxaba mooy nga jël aw ñam joxe ko te it benn yàq yetti man saa maqar ba aw miskinan sa matara ba te bu ñu xool miskin dëgg-dëgg bu ñu ko doon firi mooy Baye Fall ndax mooy koo xam ni du denc dara mënta denc lenn loo xam ni ren ba déwén dana mën dajee benn place kooku nag jàpp naa bu ñuy wax miskin ci diine wala ci lislaam kooku moo tax ñuy wax ñuy wax miskin daam def ko ngir lan ngir weeru koor jëf ji ci Seex Ibra am ndax ndogu yi mille mille neuf cent seize la ko Seex Ibra Sëriñ Tuubaa moom boobu la ko digal te 1916 bu ngeen xoola xoolaatee ci histoire xam ngeen ni booba ñu ngi ci ñu ngi ci biir guerre mondiale ndax 14 18 14 la guerre bi commencé woon bu 18 la jeex kon bi ko Cheikh di bi ko Sëñ Tuubaa diggal booba ñu ngi ci biir ñu ngi ñu ngi ci biir weeru koor booba booba defe naa sëñ baa ngi njaareem ndax 1912 la Sëñ Tuubaa dem njaareem kon booba li koy diggal ci gan mi ngi ñëw li ko taalibe yi. bari nañ lool seex yi ñëpp seex nañ foofu nag dajanteeg guerre mondiale kon da ngay xam ni bunt bi Seex Ibra bi ko Sëriñ Tuubaa ubbil li tax mu ubbil ko ko lan ndax dund gi ñu dund amulul suñu boroom njëriñ waaye liñ fiy def nag looloo ko amal njëriñ liñ fiy def yalla dafa bind dafa bind dundu bind de waye da am lu waral mu bind ko li tax moy dund gi dala ci nattu sant la ndax lu bax bu tege ne yalla ko mom waye lu bon bu tege tamit yalla ko mom waye nak dani dani nak deug deug li li li deug deug mbir bi nak moy bax ñi bax la andal ñi def lu bax ñom la sun borom andal kon li tax mu bind ñu nat ñu ba xam kan mo gëna rafet ci ñun jëf kan moo gën a rafet ñun jëf jëf nag aw làmmiñ ña koy def ak i cër du len du len ndax ki ki ki ki ki ki ki ki jàngale alxuraan mi ngi jëf waaye day wax ki liggéeyal yàlla tamit ci ay cëram mi ngi jëf waaye tamit ba tey bokkut ak nakee di jëfee waaye nag li waral dund gi moom li ko waral du dara lu may xool ba xam kan moo gën a rafet ñun jëf kii moom li ma seere benn dong la mooy ku bëgg Cheikh Ibra la waaw yoon yi nag lu fi waaye am ak bëgg la ko may waaye kii moom li may seede ci moom benn dong lay benn baat dong la te bëggul bu ko ëpp bëggul bu ko yées mooy ku bëgg Cheikh Ibra la loolu xanaa loolu de waaw waaw te man bëgg naa ku may seede tamit nga seede ma loolu bëgg naa ku may seede te yéen ñi yaakaar naa loolu doo ngeen bëgg waaw ndax am na koo xam ni ci ñi sëñ Tuubaa seexaloon la xam naa aw turam xam aw santam xam ak njabootam moom ko daa am lu mu daa wax ni su yomal xiyaamatin ak bare ba nit ak jinne ak malaayika teew benn baat rek la soxla na Seex Ibra Faal jóg ni diw sama xarit la woon neen loolu doy na ko mu am ci li bëgg doy na ko moom ëllëg mu am lim mu bëgg loolu nag day baat boo xam ni baat bu gàtt la waaye li mu ëmb dafa bari mooy daam wenn melo la moom la ko ñëpp xamee wenn melo laago laago ne li fekk mën nga ko nëbb rek des na boo laajee ku la gis daa war a xam ne sa loxo daa laajee <laughs> sa tànk noonu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu xanaa maa ngi nuyu ñëpp rek di sant yàlla bu baax di julli ci bi sant Serigne ak Cheikh Ibra Fall sa ñëpp Sakkoor Mbodj sama wasila di sant àdduna yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi teewer ak sëñ am ni moo di mel mi xalifa Baye faal ak waa kër Serigne Ibra Fall ak waa kër sëñ Modou Mbodj yëpp comme ni ma ko waxee rek sama wax du ci bari xanaa kàddu yu cant ak gërëm rek ñu sant yi yaaram yi fi toog muy sëti Cheikh Ibra yi mel sëñ Moussa mi toog sëñ Cheikhouna Fall léegi la fa sëñ Naar Fall ak waa kër sëñ Idaali Fall njaboot Cheikh Fall gépp njaboot sëñ Modou Mbodj gi kii toog nii muy sëñ Mambay di sama leeru sëriñ di sama sëriñ di sama xarit di sama lépp ñoom ñëpp ñu ñu ñu bàyyi lépp ak sama mbokki taalibe yi ak xarit yeeg am bi jàmm yi am ñu fi ñew ño xamanteni bi sax mënumaa jaar ci seen tour kon lool sant yalla la comme ni seigne Moussa rek bis bi bañ koy tambalé sama waajur woowu nga tuddu sank nar mi wax ko ñu diko ci ñaanal ak sama serigne dama dem ba Touba Fall seigne abou sakour Mbour seigne abou sakour Mbour waajuru waajuru seigne bi tok mu jox ma ci ndigal ta boba cafeteru kafe la defoon ak ben gorosu biscuit te deewon ge te déwén ma def ci ay beñe ak ay casqueur café loolu yëpp rek ma ànd kook mom suñu swami comme nim ko waxe won yakana mu bu suñu bu sëñ Abdou Sakor bis ba ñam fa yónnee won bu dul Mambey mi suñu Talla ci la bok sax suñu Talla Mbodj waxtaan na fa mu doon lo xamanteni bi yakar naa ni e, e, manam comme niko ko sëñ bi waxee rek ñun dañ koy def ngir yalla ak yonent bi ak serigne bi ak itam bëgg rek suñuy soppé suñuy ñëpp bëgg ñu berndeel leen ñu lekk naan sant yàlla ndax bi ñu xëyee wàcce nañ fi ay kaamil ñaanal ci sama wayjur yooyu dem muy sama sëriñ ak sama wayjur boobu dem ak bépp booy daw la di ñaan suñu borom yool ba fekk leen fan tëdd ñam ñi it ñam ñun ci togg ñun ñu ci ñun ci ku ci xéwlu rek xéwal gépp yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ak ñoom suñu suñu wayjur yooyu jiitu ñu tëdd fa leen sant rek ndax faal comme ni nga ko waxee sànq bis bi ñoo ko commencé woon sànq bi ñëwee kafante nañ loolu waaye weetoon nañ ci lool xéwal yi bëriwul woon nit ñi bëriwul woon eh, ñun ñoo ko àndoon mboojeen tuuti mboojeen tuuti faaleen mën naa ne moom mii sax ci faaleen moom dong ak sëñ Mame may meeg sëñ Talla ñu sëñ sëñ Abdou Sakor yebaloon tey dem nañ ba sëñ bi jóge fi sama baay jóge fi ñu mujj ko def di leen ci ñaanal dañ ko daan def nag tànt bu mag di def ay cant ak ñëpp waaye jamono yi fi mbas mi ñëwee ci lañ ko leen di ko def nii ñu gis ni comme nii bu ñëwee nit ñi dinañ xéwlu ba ba ba mu baax te du am ngaañ ñu ñu ñu ba ñu bokk nii waaye comme ni ko sëñ bi waxee nii sax ci la ëpp ci nin ko daan bin ci ci bin ci bin daan tànt du dëgg kon ñoo ngi sant ñëpp nag di sant sama wajur wi nga xamante ne bi moom laa nekkal ci kër gi di sama yaay jaay jàmbaar lool jàpp ci bis bi wax dëgg yàlla sama soxna ak samay doom yëpp ñu ànd ma ànd kook ñoom vraiment kenn. doole mu fekkewu ko kenn alala alalam fekkewu ko kenn temps mu fekkewu ko ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu te wér te gudd fan ndax sama samay samay ñaan looloo ciy jiitu man looloo ciy mujj muy sama yaay na gudd fan rek mu guddee fan yàgg fi rek mm, lépp lépp dina baax Fall Ndiaga ñoo ngi lay sant bu baax a baax ndax yow bàyyi woo ñu benn yoon sant sëñ Mamba yi mii sama sëriñ comme ni ma ko waxee di ko sant bu baax ak Modou Faye mi sama mbokk taal bi sama jëwriñ ñi fi teew ñëpp su ma limee dinaa juum daal. maa ngi sant ñëpp daal wax ji li may doon doon ab waxkat bis bi dama ciy lott di di ci wax waaw li may doon doon ab wax dama ciy dama ciy gàkk du dëgg aaroon di la sant bu baax yow itam yéen ngeen jëf jërëjëf eh, yaa Seynabo soxna bala maam Njaay abo daar daar faal njege la ilaha illallah maam Seex Musaa faal faal njege yaram yàlla daal faal nga yango la ilaha illallah na ñëpp def ni nu magal Seex Abdu Sakoor Mbooj yàlla daal nga yëngo may sa biige faal faal njaga yaram yàlla daal faal nga yëngo ndimbalo yërmande faal doole yi biir faal ak bite ak senevision.com la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag